kii Africa rek comme ni ngeen ko waxee tey ji ñu ngi nii kër sëñ Ablaye Diop xaas borom daaru tey vraiment ñëw fii certifié ay ndaanaan kii ñu taxawal nag Aliou Afia kenn du ko présenté ci Sénégal mais kenn du ko présenté ci Afrique rawatina nag digganteem ak Ablaye Diop xaas Aliou nuyu naa la. aouzu billah bismillah inna waliyallahu jërëjëfati Serigne Touba ki jara am maam Cheikh Ibrahima Fallam gàcce nga laama Serigne Afia Mbacke Fallilu jokko jël Cheikh Ahmadou Lamine Bara Mbacke Afia est-ce que Serigne Afia Mbacke euh, maa ngi lay fay di di la ziare yow ak waa Africa donc di ñaan suñu borom defal leen tawféex. li war sa waaw sama teewaay dara waralu ko ginnaaw sëriñ bi muy sëñ Abdoulaye Diop xaas di sama xarit di sama mag di sama sëriñ di sama lépp donc sama teewaay moom xam naa ni euh, yàgg naa teew waaye teewu tey bi moom ku ne xam ne ni ku fi ñëw rek jëmu joojo ko waral. Uh-huh. Aliou yow relation nga ak waaw relation yi ma ak moom nag dafa mel ni ay comme relation entre frère et frère. comme nit ko bokkal ndey ak baay relation bi am seen diggante relation boobu moo am sama diggante ak moom muy que dina waxtaan ak man dina waxtaan ak moom su ma juumee dina ma jubbanti dina ma conseiller te dina ma dina ma taxaw ni mag di taxaw ak rakam dina ma taxaw it ni baay di taxaw ay doomam donc sunu relation moom euh, familiale la donc sama diggante moom du lu Sénégal di laam-laamee ndax defe naa àddina ñëpp xam nañ ko. voilà. yoon nga am ak soxnaam si di Soumboulou. waaw Soumboulou nag yàlla dafa dogal muy sama xarit bu yàgg donc ñu xamante xameel bu yàgg mën naa ne sama xameel ak moom sax moo jiitu sama xameel ak sëriñ bi waaw sama xameel ak moom moo jiitu sama xameel ak sëñ parce que xamante nañ ay atti at ci ginnaaw yàlla doog a dogal sama diggante ak sëñ Ablaye waaye mën naa ne li ma li may waxtaan ak sëñ Ablaye ak li ma sëriñ Ablaye xamal ak lim ma lim lim ma lim ma mënal ak fi mu jaar ak man yëpp euh, jotuma fa àgg ak Soumboulou ndeem jigéen la waaye sama relation ak sëñ Ablaye mën naa ni moo moo gën a euh, croché wu ko sama relation ak Soumboulou waaye tamit mu doon nit ku baax Soumboulou donc ñu xam ci moom lu baax parce que muy artiste ñëpp xam ko ci film euh, donc ñu koy ñaanal sunu borom sëy gi yàlla def ko muy sëy bu barkeel ak njaboot gu barkeel mu doon njiglaayam doon njiglaayu sëriñ bi. nooy waaj a màggal gi. waaw màggal gi moom comme lima wax gars yi rek comme gars yaa ngay lal ay mbir ngir fomm màggal ga sëñ Muntaxa bañ na màggal gi day am ren dafay am màggal gi dafay am ren te dafay am déwén bu fekkee dem màggal mooy yóbbu sunu ruu yi. ñun dañuy dem Touba jaaree fa dem mbàkk ya bu wér waaw noonu rek lañ koy waajee. Aliou Aliou Aliou loolu Aliou loolu dafa garaaw <laughs> lii dafa garaaw Aliou Aliou jaaraat euh, yaa ngay lal ay mbir ngir fom màggal ga sëñ Muntaxa bañ na màggal gi day am ren dafay am màggal gi dafay am ren te dafay am déwén. bu fekkee dem màggal mooy yóbbu sunu ruu yi ñun dañuy dem Touba jaare fa dem mbàkk ya bu weer mais <laughs> Aliou lii garaaw na Aliou Aliou Aliou tey màggal gi Aliou Aliou noo koy waajee ak Aliou yan leçon ngay joxe ci li nga xam ne mooy màggal gi ak mbas mi nga xam ne dafa dëppoo ak màggal gi. waaw xam nga toujours dama naan ñun sëñ Touba ñu gënal mbas ba tax na euh, mbas du nu tere màggal yi même bu doon dañuy dem si autoroute bi ñu teeñu ñu fa ñu tëdd fa ba màggal gi wees ñu ñibbisiwaat. ñu xam ne suñu yéene demoon nañ xare ji ngir màggali mbas mi nag comme li ñu wax rek comme li xalifa général day wax sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ànd ak wér nañu respecté mesures barrières yi ndem Touba lañ jëm waaye ñu respecté masque yi takk ko donc sensi sensibiliser nit ñi bu baax ñuy ñuy faral di raxasu fu loxoy taxee nañu raxasu yor yor gel yi di ko doxantuwaale waaw te te moytu nag masque yi nga xam ne moom la ñu bind 18 safar comme liñ ci wax ay noonu sëñ Tuubaa ko defar. Ah, dafa am ay masques yu ñu bind ay 18 safar yu ñu bind 18 safar ay nooni Serigne Touba ñoo ko defar ngir lan ci ngir ngir ngir ngir ngir gàcceel màggal gi ngir bu ku ko takk boo ñibbisee feebar attaque la ñu ne waxoon nañ leen ko ñoo fi songu màggal feebar baa ngi ni gën naa yokk kon nag loolu maa ngi ci jox gars yi ne leen masque 18 safar bu ngeen gis bàyyi leen ko fi bàyyi leen ko fi te uti yeneen masque kon nag loolu moom mooy li nga xam ne maa ngi koy dénk gars yi. gu mujj. waaw kàddu gu mujj moom ci ci ci Africa bi. waaw waaw. ñoo <laughs> taxaw ak daanaka mel yow te dooñu laal dara Africa. Africa. sëñ Bamba siggil na lislaam doomi maam jaara buso maam Bamba siggil na lislaam Afrika maam Bamba siggil na lislaam dem na Gabon jaari Mayomba jaar na Limbal Wali ku jaar fa Bamba jaar doo delloo ci dunya